mbokk internautes yi daleen ak jàmm journaliste bi di Abdou Latif Coulibaly nekk euh, conseiller en communication ci palais de la république moom mi euh, ràññeeku lool ci wàllum euh, journalisme daal di dal ci kaw Ahmed Aidara bu nekk ex bu groupe des médias ba ñu ko daal di interroger ci affaire Ahmed Aidara mi nga xamante ni nag dañ ko poussé à la sortie ci naka point de démission ca des médias ministre bi nga xam ne ministre conseiller la ci en communication. déclaration moom Abdou Latif Coulibaly euh, ne nag amul habitude di prononcé wu ci nag ay cas d'individuel euh, seulement secrétaire général bu gouvernement bi di rappeler que nekk am na ay règles ak textes yoo xam ne euh, dafay régir li nga xam ne mooy profession bi ñu nekk muy wàllum journalisme ndax nee na nag lu ñuy mel mu ngi ko waxee sax ci benn panel boo xamante ni CORED ñoo ko doon daal di def nag CORED nekk nag observatoire bi nga xamante ni moo daal di yor lépp nga xamante ne mooy euh, wàllum éthique ak déontologie ci wàllum métier journalisme fii euh, di nag tribunal de pairs euh, si nag journalisme engagement politique buñ sukkandikoo ci Latif Coulibaly ne nag revue de presse bi nga xamante ni moom la doon dem moom Ahmed Aidara dafa war a répondre à des warul nekk ci wàllum opinion personnelle wala ci ay texte boo xamante ne journaliste si boppam bu presse écrite bi daf ko daal di nag produire la veille daanaka nag kenn permettre sañu daal di commenter encore moins dénaturer li nga xamante ni mooy mbir yi ni mu daal di nag deme te loolee pour mu am il faut que nag ñu def benn euh, certain sens intellectuel euh, bu ñu sukkandikoo ci ministre bi lee nee na am na benn cahier de charge boo xamante dañ ko war a respecter une éthique ay une déontologie goo xam ne war nañu ko daal di nag sàmm euh, te lépp moo daal di war a accompagner li nga xam ne mooy métier bi autrement liberté d'expression et signifié wul itam ne da nga war a wax absolument lépp loo xamante ni daf la daal di nag neex lu la neex nga wax lu la neexul nga bàyyi journalisme da nga daal di encadré euh, te itam euh, il en est de même pour ay différents genres rédactionnels goo xamante ni nag euh, bokk na ci revue de presse lépp itam dañ ko war a daal di nag teg ci yoon waaye nag Ahmed dara amul droit nekk nag ci télé bi di dénaturer li nga xam ne moom mooy propos yu journaliste daal di produire ci seen i nag journaux sonn ci ba bëgg a dee ñuy publier kon mu ñëw di ko daal di nag dénaturer sous prétexte que ne nag dafay politique mu koy daal di servir noppi eh, nag eh, moom mi di Latif Coulibaly lii ni mel la daal di nag tàkkale Ahmed Aidara eh, wax ko ko nag ngi daal di koy revenir lu à la raison ci nag daan yi nga xam ne moom lañ ko teg nii mu xamle ni nag lu jaar yoon la ci nag waa CNRA bu ñu ko deful woon dañuy daal di nag wàcc yoon ñu fàttali ne moom Ahmed Aidara ci ba mu nekkee maire ci la ñu daal di nag ñoom waa CNRA Babacar Diagne jiite ko ne amatul def nag revue de yoo xam ne daf ci daal di ay information personnelle am eh, di ci gaaruwaale ndax loole bu ko defee daañu retiré li nga xamante ni mooy eh, signal bu Sen TV noonu ne ñu daal di koy nag menacé menacé eh, ba mu jóge ñu exécuté ko waral Ahmed daal di nag moom mi démissionné foofee nag dem taxawal moom itam ab chaîne YouTube bam duppee ko 2A TV moom Ahmed Aidara nekk fa jamono ji def revue presse comme ni mu ko daan defee ci nag groupe des médias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 pare leen man waaju baax maa ngi foofu yéen célibataire yi tey ngeen dee marié yi am ngeen lu xamal xam ngeen li ma leen wax eh DKR 221 abonné